fi ngeen gis nag defe naa xàmme ngeen ko kenn dootul euh, waxati ci bërëb bi sax ndax euh, euh, defe naa tey jii bu ñu dee lim temple yi gën a mag ci wàllu culture fii def ci bokk muy grand théâtre grand théâtre nag bi ñu ne xam ngeen ni ñun miin nañu ko muy suñu télé bi la nga xamee ni yéen rek ko tax a jóg ñu ngi jëm nag ci bis bu am solo muy événement boobu la nga xam ne waxatu yéene indil waa Sénégal le 6 septembre alors comme ñu ngi jëm nag euh, ci yoonu Grand Théâtre le 6 septembre moo taxoon tey euh, ñu fas yéene waxtaane événement boobule moom nag Abou Dioubade barki Dembo Ndiaye bi ñu jàkkaarloowee euh, ci night show bi dégg ngeen li mu wax tey nag defe comme nettali ci làmb ñu borom ku ne xam na ni bu ñuy wax ambassadeur ci wàllu culture ak El Hadj Baba maa la tax Euh, ku ne xam ne itam bu ñuy wax euh, ki siggil Sénégal yëkkati drapeau bi ca kaw partout dans le monde El Hadj Babou Bèye moo tax ñu koy wax moom nag Abou Dioubaté fonk ko lool ba tax mu jël lépp loo xame ni am na solo euh, ci dëkk bi dégg ko ko ndax fonk ko ak cër boo xam ne ni jox na ko ko waaye tey jii bu ko joxee cër boobu Sénégal yëpp na ko ndax defe naa dafa

yàlla boole ñu nag ci ay fànn yu bare bare bare ci mbokk mhm. gi magam laa njëkk xam mu nekkoon sunu kër bi ma ko gisee la première fois dama ko jaawaleeg moom mu ne du moom sama sama mag nga xam mhm. mu def nag lu ma neex parce que dafa nekk koo xam ne kii baatam bu jógee képp kuy Haalpulaar di pël ngay nga am beneen xeet boo bokk ci mbirum Haalpulaar boo déggee Abu Juba baat bi rek di xam ne lii la lay lay demee mu nekk baat bu wóor baat bu boo xam ne bii baat bu sûr la macha allah yan la ko yàlla lafal cat ñu koy ñaanal yàlla fépp fu mu bëgg teg tànkam di ko avancer ci mbiru musique yàlla na ko ci yàlla jàppale. man nag dafa ma bëgg a personnellement parce que koo xam ne que dafay jógee këram di ñëw sa kër fekk la ci sa salle toog wax la biiram ak bitteem nga ànd ak moom sa biir néeg nga ubbi sa biir néeg mu jël lu ko neex wala mu def ci lu ko neex wax dëgg yàlla kooku moom desalatu la dara donc maa ngi koy gërëm di ko sant ci teraang bi may teral. mais itam teraanga bi nga xam ne dafa ne ma guddi gi bëgg naa foo mënoonte nekk ci àdduna bi mhm. nanga bàyyi lépp nga ñëw nga jàppale ma waaw pour moom la pour moom la moom moom moom moo liggéey lu toll noonu ci biir xeet bi te xeet bi dafa soxla ay baat yu mel ni baatu aboudiba ñoo xam ne bu ñu waxee ñu déglu leen ci biir wax yooyu bu ñu woyee itam woy loo xam ne lii dafa am njëriñ ci képp koo xam ne haalpulaar nga mais ngay sénégalais ci réew mi fi mu tollu donc képp ku mel ni man bu fekkee ni ku mel ni moom woote la guddi gu toll ni war nga ci ñëw war nga ci ñëw pour moom mais war nga ñëw itam pour Sénégal parce que mbir mi moom defalatu ko pour boppam mais daf ko defal pour communauté bi defal ko pour réewu Sénégal donc ñu ko ci ñaanal yàlla yàlla ko ci yàlla may ndam bi mu ciy wut Euh, mbeɗa sikki pape sek diallo kalami tan koye pular woni baaba ko haali ko fof yimɓe nani ɗum nanoɓe pular ɓe nani ɗum nanoɓe wolof ɓe nani ɗum hakkude amen koko mbiyatmi ko gueɗe wawa gañe wawa ko allah tan wawi ko mawniraɗo parnorɗo ko mawniraɗo jontaɗo ko mawniraɗo perɗo lawol min mbawi hen rewde nalankoɓe haal pular en foof so wonano kanko gandata koye mumen tawi woni jamma aboudiouba ko jamma grand théâtre woni le 6 septembre mbeɗa waɗa ɗum ɗo te babmal jeeyaka hen jamma o ayotto ɗum noon babamal <laughs> jamma o ko jamma ma wona jamma aboudiouba ko jamma dande leñol ko jamma jayri gendi ko jamma fuutankagal e pulago foof <laughs> ɗum noon ko minen kala goto amen holluma needi koyema yii saabu yii ko fullo ma e fayida ma e leñol ngol mm. neɗɗo mawɗo mbi ko mawɗo moƴƴata needi sukaɓe kewa needi soko mawɗo ala needi sukaɓe dañata needi mawɗo o ko ma jogo lawol poccugol e sukaɓe mbawa rewde caggal mum mbaɗa ko yooɗi caggal muɗum mhm. walla no kaalay ko yooɗi caggal muɗum an noon ko ka royukayi ka idole ka ka mo ganduɗa ka ka ñembi ka ka ñembateɗo yooɗo ka <laughs> an woni fof mbawa aissata samboubou yasine <laughs> mais Pape nag war nga woo làkk pulaar nag. non man kay ma jàngal fi mu nekk. ah parce que bëgg naa bu may def ak yow émission spéciale. Ah, ah. def ko lépp en pulaar. waaw moo mën a jàngal. Euh, El Hadj bu ñu demee ba euh, euh, yow yaa ci nekk ambassadeur muy musique alpulaar. Mm-hmm. waxutuma Sénégal donc waaye da nga da nga da nga sagal sa askan. Mm-hmm. sagal fi nga bokk bu ñu demee tey ba ku mel ni Abou Dioubade nekk ci ambassadeur comme yow ak yeneen i xale yoo xamante ni roy nañ ci yow. yàgg nañu reprendre say way yàgg nañu doxalee ñuy ba dem ba am ci tour euh, euh, qu'est-ce que ça énormément plaisir parce que man damay faral di wax ne lépp loo xam ne nit ki daf koy def ci àdduna euh, te mu bëgg mu doon lu baax daf ci war a séentu mu nekk loo xam ne dafay law dañ koy woy sax ñun ci pulaar lu baax dafa war a law dafa war a law dans le temps moom mooy nga dem sax ba bàyyi. ay yeneen génération ñëw naan kii li mu doon def rafet na lool waaw sa xel ma a daal ni yow li nga ji woon sax na wala mu law dans l'espace nga toog nga def ko fii au niveau du Sénégal am koo xam ne ki ku mel ni alu Sam fee ci Mali ak keneen ak keneen ne mi ba mal ni mu def ci Sénégal bëgg naa def lu mel noonu di ko copier donc loolu mu war la ne am na barke parce que ni du lu dul lu rafet kon nag ñun loolu loolu donc mooy wune ba nga xam ne mën nañ ko am ñun ci xale yi ndax lépp lu ñu def parce que ñun dañ fi fekk ay mag yoo xam dañ doon def ñoom Samba Dié Sall ñoom Samba joob Leele ñoom Gelay Fall dañ leen fekk ñuy def ñu leen di ñuy yërndu di leen seetaan naan ñoom li ñuy def rafet na di ko roy ba ñun ñu mën a def leneen lu bees kon nag bu ñu gisee xale yi di def loo xam ne li ñoom ñu ngi koy roy ci ñun di ko wax ci kaw itam ñun dañ ci am fierté ak kontaan di leen ñaanal yàlla parce que ñun amuñu dara yàlla moo mën lépp lu nit ki di mébét bu ci yàlla àndul du yegg particularité El Hadj Baaba Maal euh, ne Baaba Maal mu ne la daf ma jàppale cest à ko rek euh, ci woykatu al woykatu alpulaar yi waaye euh, euh, mm. ay xale yu bëri yoo xamante ni yóbbu nga leen gën loolu dafa am solo mm. boo dee mais xam nga ñun dañ ñu jàppale comme ni nga wax mais Ndiaga Mbaye na ko yàlla xare aljanna mag la boo xam ne bi daf ma jàppale woon bu baax a baax ndax da daan jógee këram moom képp ak nekk mag ñëw sama kër ñu toog di waxtaan ci li muy yëngu ak ci li muy wax moo ci wax lu bare bare bare bare su du want moom am na lu bari lu ma xam ci wolof du ma ko xam kon nag su ma toogee ba gis ay xale daw di réer di jëm si man man itam sama wargar moom ma jàppale leen damay jéem rek yàlla comme ni ma ko waxee yàlla moo mën wante yaakaar naa ne loolu itam suñu warugar la ñun ñi nga xam ne ñu ñoo yàlla def ñu def ay njiit ci réew mi def ñu biir àdduna parce que am na responsabilité yu bari jox nañ ma ko plusieurs fois ambassadeur mais ambassadeur yooyu du dara lu dul ñu dellu ci suñu askan ci domaine yi ñu def ay ambassadeur ñu jàppale leen la lutte contre la pauvreté li may liggéey ak ak Oxfam ak ainsi de suite yooyu yëpp parce que soo demee ba am tour nga am tour boo xam ne mën na mobiliser ay nit ñi moo mobiliser ay fonds da nga ci war a jàpp jàppale ci doomu aadama yi ku bokk sa xeet ak ku bokkul ak sa xeet yëpp na nga boole leen ci parce que doomu aadama yi tant que fu ñu mënti nekk ñi ngi épanouir mën naa wax dem ci kanam donc loolu mooy suñu warugar. voilà euh, Abdou Badé euh, tey jii boo toogee euh, ba guddi gu mel nii parce que bi mooy nekk sa scène bu njëkk fii ci Grand Théâtre waaye say événement yaa ngi koy amal ci àddina ak bu jot ren mu tombé ak 6 septembre tubarkàlla nga toog ki nga foog bëgg ko lool ba nga fas yéene àndandoo war a neex rek euh, yaakaar naa ni <laughs> war neex rek euh, euh, foti tan ko welde uh-huh. saabu koko yimɓe cooni noo haala pulaar mbi ko ko soyneteno suko saami hani ko hocceede uh-huh. e min hannde mi haalata wolof ko uh-huh. pulaar tan kaalanmi acca aan baaba kaalon wolof <laughs> e, ko waɗate ko jamma kebiiɗo fayede jamma le 6 septembre mm. ko jamma mo ngarɗo hoore ma ko ma watte ma limte e ndeer jammaji fulɓe jawtuɗi saabu ko jamma keɓiɗo waɗde fayida saabu so wiyama aboudjou ba min daroɗo e ngal ɗo dingiral yimɓe fof kuccita e amen pulago fof huccita e min mm. putankagal fof huccita e min ɓe sikki ko e on jamma ko jamma belɗo wonata ko jamma kanɗo wonata ko jamma korsinaɗo e nder jammaji wonata mm. ɗum noon papa sek min mbiyat ko min ñaagui pulago foof e fuutankagal foof mm. kala mo ganduɗa hoorema ƴiƴam ndimago ina doga ma e ƴiƴam pulaagu e fuutankagal nani dogay ma ya noota jamma o saabu jamma o wona fijirde yimɓe mbiyata ko fijirde ala ko hoore mum mm-hmm. saabu neɗɗo o soko tawi rartima dandaro ngal moƴƴi ko jiya hen hoore ma wona dartoɗa darolgal jiya toon goɗɗum ala poɗɗa ko rarta darolgal sa yii toon goɗɗum ko wona an tan poɗɗa ko hulde oɗo jamma noon goto fof so ari ɗo so rartimma yi hoore mum mm. proposé donc le 6 septembre euh, actuellement euh, fi mu toll tembe je sais que yéen a ngi def seen ay réservation pour mën a teel a am ay billets on parlera de ça ak ki nga xam ne ni moo di euh, Abou Dioubane El Hadj Baba Malick tey jii ñu gisee évolution musique alpulaar fii ci Sénégal. seen musique y a beaucoup d'avenir damay voyager un peu partout dans le monde damay tâter le pouls de du du business le showbiz en quelque sorte. Euh, je sais que c'est une musique qui ay woy yu wóor mélodie yu wóor ay textes yoo xam ne dañoo am maturité et c'est ça qui est le plus important et le marché musical na foo xam ne fii dañu soxla lool boo xoolee évolution wu Ali Farka Touré nga xool Toumani Diabaté nga xool Oumou Sangaré ak fu ñu toll léegi nga xool Amadou et Mariam nga xool Rokhia Traoré

boo leen nekk xam Sénégal ñu ne Baba Maal ak Youssou. waaw ñaare da ngay def ci dëkk sax di nga xam sax turu président la. waaye boo leen nee Sénégal ñu ne la El Hadj Baba Maal ñu ne la Youssou donc yooyu yëpp defe naa la combat. Euh, xale yi war a war a war a comprendre la pour que affaire bi gën a. quelque part je pense que xale yi li ñu war a gën a comprendre mooy le métier de la musique benn. ak le business de la musique parce que dafa am itam waaw et le business de la musique le talent est là le talent talent bi mi ngi fi mélodie yi ñu ngi fi gëstu bi mi ngi fi connexion bi mi ngi fi parce que les sénégalais son très connectés avec le reste du monde ndax euh, télé yeeg rajo yeeg jàng beeg ak tukki bi internet et tout et c'est un peuple très averti sincèrement mais le métier de la musique nga xam ku ci nekk ku mu doon parce que dafa mel ni benn boo ñëwee ci benn marché nga xam ku ciy jaay. Euh, ceeb ak ku ciy jaay diwlin ak ku nekk loo représenté biir nga mën a xam foo dem foo de waxal loolu moo des loo xam ne kooku nag du ñoom kooku ñun responsable yi ak ak kilifa yi ak administration bi ak gouvernement bi ñoo war a toog waxtaan ak ñoom ndax benn nit dong mënu ko def dafa laaj de temps en temps ñu arrêté lépp ñu toog ñu waxtaan seet nag la ñu préparé cette génération parce que wéy waay pour adduna bi soxla nañu il faut ñu seet adduna bi li ñu soxlaa lan lan lañ ci mën a indil Sénégal lan lañ ci mën a delloo si fii pour euh, suñu culture bañ a dee à jamais def naa loolu itam bon la appel boo xam ne lancé naa ko à nos autorités. Euh, euh, ah mais par la musique pulaar la musique pulaar lu tax ma am confiance ci musique pulaar ñoom Abou Djouba ba ci xale yi xam ne ñu ngi soog a ñëw. ku ci nekk si ñoom bu toogee dakaar bu fi defee semaine doy na ko mi ngi dellu biir Fuuta mi ngi dem ci mag yi mi ngi ànd ak ñeeño yi mi ngi ànd ak géwél yi mi ngi gëstu li nga xam ne moom la taarix di way boo dégloo seen wax di nga seen way di nga bu doon bu déggoon pulaar di nga xam ne ku ci nekk ñoom toogul fi di woy rek mbëggeel ci biir la ñuy way dund doomu aadama la ñuy way trois mois quatre mois cinq mois six mois waaw donc loolu dafa nekk loo xam loo am solo la bon je comprends très bien que y yenn benn génération boo xam ne seen une génération moderne mënuñu bàyyi capital bi nekk ci àll bi mais quand même y a l'internet y a les réseaux sociaux donc y a beaucoup de choses yoo xam ne nit ki mën na ko jàng xam ne lii moom moo ko moom boole kook ci li nga xam ne jëleen na ko ci aduna bi donc sincèrement euh, je félicite beaucoup des gens comme comme ñoom ñi xam ne nii ba tey bàyyiwuñu gëstu parce que loolu la gëstu mayul rek njàng ko may waaw produit yi ci domaine dal na xel waaye itam dina rabbi mm-hmm. ma kolli <laughs> ma guitruji ngar ma kumballi ngar ma bawɗe bubaji ngar ma daaɗe belɗe ngar ma kadi cifti hanki ngar ma yontaɓe leñol ngol ngar ɗum noon mbeɗa sikki ɗo hay hunde keddoto e, tardude dal mbeɗa sikki ma looti ma kadi hamto no feewi saabu jamma o oɗo jamma kala mo tawtoraka ɗum absek mbeɗa sikki ma wo ko haaltoye e, e, ci jàpp alors defe na euh, Euh, normalement euh, bi yi pare na mhm. euh, Salif Samba Sall mooy ménageur bi mhm. ci àll bi la jógee poul yi jënd nañ billet yëpp ba mu jeex tak eh su moytul olof yi ak séeréer du am place de. <laughs> poul yi fi bëri. ayca ñu bàyyi la nga am lu bi te El nee na. ne la da ba ba Kayartu Mamadou Moussa Alaaji Mamadou Moussa a ah, njaare ne la Samba Boubou Yassine njaaren nu laa dooyi mama njaaren nu ee njaaren nu laa doo mama dooyi ko mama wo baba baba baba abu tibaade sinaani jaaturu sinaani mm. yallo ni jakite sidi ɓe ganani sangare nden noon mbiyen dedede ko pullo alhaji mamadou mousa a ah, baba aissata samba boubou yasin wadda gorko coofe law demma an mbiyami towɗo leñol towni leño jarama de an woni mbaɗodi leñol jarama somi yima tan mi welto ɓernamota leydi fota yo baba jaren jaren nelaɗo kono jaren jallo jeeri alima fiñon dalla fantan dalla hmm, jallo jallo jeeri hmm. pullo sinani jaturu sinani jallo ni jakite sidi ɓe ganani sangare pape cheikh diallo kecce ngel calinogel min ñeende billahi wallahi min mbima bisimilla ma mbari mi lamma ñande le 6 hmm. inchallahu rabbi mimi baba aissata samba bobo yasin nani ma tindaninom wadde ko moƴƴi kala saha baba wadde nen sitani loolu def naa Baaba Maal ay sa tasamb bu yaasin euh, maar ko pulloo jàllo ko pulloo dee ko pulloo kon ñëpp ko pulloo le 6 arabu <laughs> transformer Sénégal rek en euh, pullo country ah pullo country yes pullo euh, ñu ngi leen di jox kon rendez-vous le 6 fii ci Grand Théâtre ñëpp teel a ñëw numéro téléphone yi nga xam ni ci ngeen di wootee pour def seen ay réservation di ngeen ko gis ci télé bi ci bis yi di ñëw bu ko defee ngeen mën a teel def seen ay réservation abu ñu àll ba euh, donc euh, suñu mbokk yëpp jënd nañu euh, séeréer si nag comme ñoom ñooy suñuy jàmm yeboo ngeen ñëw rek mhm. xool seen i ñu bégal leen fii ci grand théâtre élage defe naa kàddu yi nga xam ne nii wax nga ko am na solo waaye tey jii tam dañ ci baaxaat ñu bàyyiwaat la nga dalal xelu xale mhm. ak ñu mel ni ak jubaade ak ñu mel ni ñun fonk la lool te di te di di roy ci yow waa dama leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla waaw di leen ñaanal yàlla fu ngeen teg seen tànk yan fekk yàlla moo leen ci accompagner ah, ci li ngeen di yëngu itam yàlla na fekk mu doon li gën ci yéen gën ci Sénégal gën ci askan wi ndax askan wi soxla nañ ko dañu nekk ci période boo xam ne bi adduna bi dafa jaxasoo lool yaa beaucoup de conflits da de guerres beaucoup de malentendus donc bu ñu leen déglu waxtaan yu mel nii di gis ah, ñu mel ni ñuy ànd di nekk benn wax dëgg yàlla xel dinañ gën a dal donc dañu ñaan. est-ce que est-ce que euh, euh, bennoo bi dañ ci war a euh, bañ xaajaloo. def naa ni artistes yi buñ ci jiitoo dana nekk un bel exemple parce que laar nekkoon ni que pour adoucir les mœurs rassembler pas diviser donc bu fekkee ne art bi mu ngi joué rôle boobu. incha allahu rabi ñi si des dinañ ci topp les politiques le religieux tout un chacun. on est ñu ngi ci benn ñu ngi ci benn impasse boo xam ne bi adduna bi yëpp ñoom ñoo fa toll donc réew mu ci nekk sa maturité mi ngi feeñ si naka ngay amee responsabilité gérer say problème def naa ne Afrique nag am nañ benn atu fu ñu mosaan am loo xam ne di tiis nañu diis nañu ñu wootante ñu toog ñu waxtaan weccantey xalaat te yàlla rek a tax du ñàkk ñu ji solution donc yaakaar na ne ñu toll. non du dem ci diggu peccum waxtaan parce qu'on est dans une époque moderne y a les réseaux sociaux y a les radios y télé y a yenn mag itam dañu war a toog di waxtaan di diisoo donc loolu yëpp buñ ko mettre en avant dinañ ci solution solution mënta ñàkk parce que yàlla daf ñu boole pour ñu nekk benn sur cette terre là et travailler ensemble en harmonie. alors depuis un moment à chaque fois que ma dese ak kilifa euh, ah, on est ci euh, septembre waaye comme euh, dañuy surtout ñu dëkk ci village yi nekk ci ñu bañ a xeeb euh, réew yi nga xam ne loolu mi ngi fay am solo xam ni soriwuñ ñu sunaay mbokk lañu dañuy demlanteeg ñun di jëfalanteeg ñun di échanger ak ñun donc euh, dañ leen di ñaanal yàlla li fa nekk yàlla teggi ko fa si jàmm ak salaam di déglu itam ñi nga xam ñoom lay ñoom ñooy les professionnels de la santé ci données yi nga xam ne jox nañ ko parce que ñu ngi ñu jox ay euh, ndigal yoo xam ne buñ ko toppee ku ci nekk suñu xëy na yàlla di nga def nga mucc si mais ñu dibel ko nag euh, ci ni nga xam ne moom mooy gën a gaaw yegg si si doomu aadama yi parce que buñ ko wax en français di ko wax en anglais am na ñoo xam ne dégguñu loolu la population bi nga xam ne moom moo gën a sensible ñi ngi nekk à l'intérieur de nos pays surtout au niveau du Sénégal ñu def lépp ba nga xam ne ñooñu information bi dina yegg si si ñoom ñu xam nag la ñuy fagaroo di kër seen bi nekk ci village yi nga xam ne ñoom ñooy tukki entre village et village nekk ci ay xew yoo xam ne bu gàmmu amee wala màggal am wala leneen am ñoom ñoo fa nekk wala sàmmkat yi wala kii di nan leen jox information bi ñu xam naka la ñuy taxawee pour protéger seen bopp mais loolu lépp mu ngi tegu ci éducation éducation nag du njàngum tubaab rek éducation jàng la nga xam àdduna fu mu tollu macha allah. voilà alors euh, euh, El da euh, nga <laughs> may gis toujours dam lay gis nga may gis waaw <laughs> soo toog ci écran bi di wax maa ngi lay gis yaa ngi may gis waaw maa ngi waal voilà. mais jotaay bi <laughs> dañu ko yàgg yàgg sàkku ren itam ren itam ci télévision Futurs Médias yaay mu neex ma lool waaw mu neex ma lool man neex na ma lool maa ngi ciy gërëm di ci sant sama jigéen ngoone su que ngoone sama jigéen la vraiment j'aime bien euh, cette émission parce que itam ay xale la donc ma lañ déparé bi et sama m'a fait vraiment plaisir fi mu nekk maa ngi def sama kéemtalaay kàttan ba nga xam ne xale yi au sortir de cette émission dinañ kontaan ñi ko organisé dinañ kontaan bu soobee yàlla man ak ñoom la ba fin wu émission bu soobee yàlla incha 6 septembre euh, Abdou Ba dañu bàyyi la nga joxe message bi par rapport ak sunu xarit yëpp ak Sénégal yëpp ndax ñëpp koy pare. Mmh. ñande jeegom lewru tubaako tan mmh, pulaago fof ɓiɓɓe sénégal naaɓe fof no nodda yontaɓe ɓe fof nodda nobluji ɗi fof nodda kala jiɗɗo hoore muɗum yiiɗi firtude hunde yiiɗi kadi andude hunde e wonde hunde mmh. ina nodda ñande jamma o hay gooto min gaccani min palta kadi hay leñol gotol kala jiɗɗo notade e jour o yo arnoto mhm. jërëjëf jaarama kontaan nañ jërëjëf El Hadj Ba merci beaucoup ñu ngi lay gërëm ba la 6 inchallah inchallah fii ci Grand Théâtre ak Abou Diouba Dek ñi mu àndal ñu ngi leen di jox rendez-vous kon bis boobu way leen di àndandoo ak ñun ci télévision Futurs Médias Abou Diouba de El Hadj Mal ñoom rek la jàkkaar looloon tey euh, fii ci sallu Grand Théâtre bi euh, mën ngeen ko xool ngeen euh, dalalaat seen i xel te xam ku ne boo ñëwee le 6 doo ko réccu pulaar donc yëfi séeréer yi la yëfi wolof yi la fi njaago yi la yëfi joolaa yi la yëfi Sénégal fi Sénégal yëpp la Abdou Diouf de mi bu amee ndam Baaba Maal moo am ndam Baaba Maal bu amee ndam Sénégal moo am ndam Sénégal bu amee ndam Afrique moo am ndam Afrique bu jëmee euh, kanam itam euh, ce sera pour le bien euh, du monde entier merci à toute l'équipe de production ñu ngi leen di dig daje kon fii ci Grand Théâtre incha allah le 6 septembre à partir de 19h en direct lay doon ci télévision Futur Média jaraan